salaamaaleykum mbokku internet euh, MK TV ñu ngi leen di nuyu fi ngeen ko gisee nag ñu ngi fi ah, nga xamante ni ni moo di hôpital euh, Philippe Maguilène Senghor fii leen nag euh, ñoo ngi fi ngir li nga xamante ni ni moo di waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni parfois dañ koy jànkonte ci wàllum hôpital yi bu ci mujj nag moom moo nekk benn décès bu ñu daal di signalé ca hôpital Mame Abdou hôpital Mame Abdou nag buñ ko waxee nekk na hôpital boo xam ne dañ fay faral di nemmeeku li ni mel li leen nag mën nañu ne moom moo nekk ñetteelu yoon la kon ñu nekk fii nag pour laaj askan wi nga xam ne ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo patients yi wala sax patients yi ñoom nan la ñuy dundee accueil bi nga xamante ni ne moom moo fiy am ak yan jafe-jafe la ñuy nemmeeku ci wàllum hôpital yi kon topp leen moom ma dem te ñëwaat. Ah, jafe-jafe yooyu moom ñu ko jàmbat bari nañ trop ah, te loolu loon ñu war a ah, jël ay matuwaay la quoi ab bu ñëwee hôpital da nga war a bu baax xam mettre ko dans les bonnes conditions loolu day dalal xelam quoi moom mi malade bi sax lool dina gën a dalal xelam quoi. comprends mais parfois da ngay dem si hôpital yi nga gis malade bi ñëw ñu ngi koy accueillir seulement parfois duñu ko gaaw accueillir tamit xam nga day nekk foofu noonu ay temps yu dur balaa ñu koy accueillir wala ñu koy yóbbu feneen te loolu day tax nit ki day gën a traumatisé wu quoi léegi ab malade moom bu ñëwee hôpital da nga ko war a accueillir normalement dalal xelam def ko mettre ko dans les bonnes conditions waaw mais nag contraire bi ngay gis si hôpital yi bari quoi am na nag ñeneen ñeneen ñi moom waaw c'est du ñëpp quoi am na ñoo xamante ne ñoom boo ñëwee dañ lay dalal quoi mais am ñoo xamante ne boo kiiyee dañ lay ñàkkal kese ak yooyu noonu waaw. waaw bon lu ma gis mooy euh, par exemple hôpital yi moom damay wax ne sax liggéeyuñ balaa nga xam ne liggéeyuñ nga am benn malaat bi nga xamante ni ñëw na ci hôpital bi nest duñ ko toppatoo nuñ ko war a toppatoowee surtout bu amul xaalis des fois da ngay gis euh, ay malades yi nga xamante ni des fois noonu la ñuy ñàkkee seen bakkan. n'est-ce pas duñ am toppatoo lan moo tax parce qu'ils n'ont pas l'argent man am naa benn benn xarit moom moo doon expliquer benn affaire lan la doon wax mu ne dal moom moo daan woon ci kawam ba léegi dañ ko monter fer buy dox n'est-ce pas mu ne moom dafa ñëw si hôpital bi mais bu mu ñëwee si hôpital bi dafa gis euh, benn malaat boo xamante nii mi ngi yuuxu mi ngi tëdd ci ci lalu hôpital bi mais kooku kenn xoolu ko lan moo tax parce qu'il n'a pas l'argent nest pas mu ne moom au moins yàlla suturaloon na ko si poosam am na fa benn deux cent mille deux cent mille boobu la joxe comme garantie gars yi nekk foofu xool ko xam nga diagnostic ko et tout mais nee na keneen gi kooku foofu la yuuxu ba ñàkk bakkanam lan moo tax parce qu'il n'a pas donc je me dis que ñun ban pays la ñu nekk wooy santé bi Sénégal euh, am na problème bu mag a mag a mag a mag euh, fenn tamit ñoo ngi jóg tamit nank-nank waaye tamit tey suñu budget war nañ def budget bu mag si ministère de la santé parce que avant tout c'est la santé parce que amul santé mënoo def dara santé mooy tax nit mu dem liggéey santé mooy tax nit ki mën a def lu mu bëgg def santé mooy tax développement am waaw léegi da ngay ay ñoo xam dañuy feebar bëgg a dem hôpital amuñu xaalis après ñu ne ndogal yàlla la te financièrement problème bi foofu lay jógee du affaire ndogal yàlla am na tami mais tamit ñun tamit war nañu mën a def comme jéem a copier comme la France parce que France ku feebar du ñu xool am nga xaalis amoo xaalis dañuy faj ñu soog a laaj ñu soog a laaj ci xaalis suñu ministre Sénégal yi dañuy dem France di fa faju amel nañu France Sénégal amel na France niveau santé xaalis bu bëri du ñu sonnal waa Sénégal parce que santé ñoom moo avant tout c'est la santé kon Sénégal tam nañu xoolaat naka la ñuy doxalee niveau santé ñu jàppale néew du doole yi ñu faju après ñu soog leen laajte xaalis parce que soo bëggee ne nit ki tant amul xaalis mu ko faj kooku mënul jóg. waaw kooku si dee lay jëm parce que kooku amul xaalis waaw balaa loolu nañu jéem a xoolaat suñu sante suñu ay doom suñu ay yaay suñu ay pap ku feebar ñu faj la soog la laajte xaalis loolu moo gën a wóor si santé. waaw loolu moom parfois nag euh, ñi koy def ñu bëri boo indee sa malade wala ñu koy jox docteur bi faj ko wala affaire yi noonu dañ koy jox euh, mooy ñii ñii di kii quoi ñu ko war a def stagiaire stagiaire yi waaw loolu moom. la plupart ñoom ñoo koy def quoi ab stagiaire moom mënoo ko jox malade bu sérieux a xamante pour mu faj ko quoi yooyu moom parfois cas yooyu moom day am quoi ab malade boo ko indee nga jox ko ab stagiaire euh, du ko traité kom ni mu ko war a traité euh, loolu moom day indi problème ba si hôpital bi nii nii amoon na euh, ay ay années yoo xamante ne amoon na stagiaire yi fi ne woon amoon na ay année boobu na fii trois personnes dee nañ fii si ay césariens quoi da kii nii si ay négligence ñu doon kii nii ma échanger ak yooyu noonu waaw loolu moom xamoon naa ko tamit. Oui, négligence aussi, i y a aussi le manque de conscience professionnelle. Nous avons le manque de conscience professionnelle parce qu'il y des médecins, des infirmières, nous à quoi ils sont appelés aussi à faire. Parce que eux, les gens ils viennent à l'hôpital pour se soigner, eux ils les négligent, ils se disent que ces gens-là c'est des pauvres types. Oui, ils ne font pas l'effort pour leur montrer que nous on Oui, les gens ils viennent à l'hôpital, on les néglige. On les regarde comme des pauvres types, quoi. C'est pas des personnes. Ces gens-là, nous, on est les patrons, on est les médecins. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'ils sachent qu'eux, ils sont là pour aider le peuple, aider la population. Les gens, ils ont besoin d'eux parce qu'on a de la santé. C'est ça. Oui. non man moom ñooñu bon loolu la doon wax ñooñu ñoo gën a tax ma ni la liggéeyuñ boo gisee lu tax ma la liggéeyuñ cas boobu laay waxee ak yow n'est-ce pas parce que dañ koy caaxaane mais euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy suivre médecine médecine branche la boo xamante ni c'est très sérieuse n'est-ce pas donc foofu noonu par exemple pour man bépp préoccupation bi nga xamante ni moom ngay def da nga war a bàyyi loolu noonu nga occuper ay malade n'est-ce pas parce que da un jour ñëw naa di wotu benn médecin ñëw rang bi mi ngi mi ngi bëri mais il fu dafa ñëw toog bëgg rang nest mais je suis obligé ma jóg may ko sama place à ce que mu mu mu mu def lu muy def dem dellu ci hôpital bi mën a yeggal liggéeyam parce que nekkul woon sax heure de pause mais kooku boo xoolee il s'en fout des malades yoonam nekku si donc malade bu ñëwee lan lay wax ils n'ont qu'à patienter mais médecin bi kañ lay ñëw n'est-ce pas ngay gis ay ay malades yi nga xam dañuy ñëw da ngay ñëw indi leen hôpital mais mën ngeen xaar médecin plus de deux heures de temps fekk sax du heure de pause mais tu tu vois pas le médecin mais pour pour quelle cause moo tax lan moo waral loolu n'est-ce pas hôpital ay wérgu ñoo xam ne amuñu wérgu yaram ñoo fa nekk waaw donc su accueil bi tamit war nañ ko xoolaat tamit ñu accueillir les gens correctement wan leen ni nous on est pour vous aussi. dafa xaw a sooxe kay li may ñaan nguur gi fi nekk rek ñi fi ñëw récemment nii nañ xool si loolu noonu quoi waaw ñu réformer affaire yi affaire yi ñu gën si taxaw quoi waaw. bu ñu ko defee bu ñu defee loolu moom dina baax trop ab dé loolu dafa bokk si développement quoi te boo demee si dëkk yi am malade boo ko indee foofu noonu ni ñu koy accueillir ni ngay gis ni ñuy gis quoi d'ailleurs ak ni ni ñuy dégg ñi fay ñi fay dem ak yooyu noonu bokkul ak fii quoi waaw loolu noonu war na bokk si gars yi lu ñuy vraiment lu ñu war a taxaw quoi. mais boo xamante ni tey boo baree doo faju n'est-ce pas boo feebaree boo demee hôpital ak façon feebar boo mënti am duñ la xool. pourquoi parce que tu n'as pas l'argent donc à ce point pour man l'État doit prendre ses responsabilités. n'est-ce pas dafa war a jël ay responsabilités am n'est-ce lu ma jàpp ne euh, li nga xamante bu ñu ko defee mais par exemple euh, état dafa war a par exemple santé c'est-à-dire nit bu feebaree foofu la ñu xamee pays bi nga xamante ni développé nit bu feebaree euh, dafa war a faju au le premier des cas nest mais bu fekkente ni yow boo feebaree par exemple yow doo faju ah kenn du prendre soin de toi donc je pense que ça c'est compliqué donc war nañ mën a war nañ mën a revoir point boobu noonu bu baax a baax vraiment. n'est-ce pas donc am na ñi nga xamante ni ñoo ngi fi ñoom ñoo gën a expérimenté à ce domaine peut-être bu ñu leen laajee xam nga bu ñu leen waxee tey euh, état bi euh, ban mesure la war a jël xam nga pour éradiquer ce ce phénomène peut-être ñoom ñoo ma si ëpp expérience ñooñu aussi dinañ doyloo seen xam-xam pour man état bi aussi xam nga comme ni ñu defee pointage bi et tout yi ñu ngi ñu ngi xëy teel léegi n'est-ce euh, war nañ am ay service de contrôle ñi nga xamante ni dañuy contrôler yooyu noonu parce que Sénégal dafa war a dépasser fii nii. Sénégal dafa nekk pays boo xamante nii pays boo xam ne modèle la fii nii si Afrique n'est-ce pas donc am na yu bëri yi nga xamante nii tey Sénégal daf ko war a dépasser voilà donc avec suñ gouvernement bu bees bi pour man daal bon gars yi moom ñoom xam nañ ne ay guerrier lañ n'est-ce pas mais daal ñu ngi leen di ñaan aussi euh, ñu gën a renforcer daal côté boobu noonu moom parce que foofu moom vraiment war nañ ko gën a renforcer daal war nañ jël ay mesures yu bëree bëree bëri. voilà comme ni ko gisee déglu ngeen ñi nga xamante ne ni ñoom mooy suñu interlocuteur li nga xamante ne wax nañu ko jàpp nañu ne aussi loolu moom moo waral feebar gi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci biiru hôpital yi. parfois yi koy waral ci yenn patients yi parfois dañuy gis yenn négligence yi aussi ëpp ñi koy faral di def nekkul ñoo xamante sax dañuy dem ba fàtte serment bi nga xamante ni ne prêté nañ ko jëmale ko ci li nga xam ne moo di wàllu askan bi loolu moomooy gis-gisu population bi nga xamante ni ñoom lañ daal di dajal fii nga xamante ni moo di hôpital leen Senghor bu Yoff mbokk yi li leen ni loon tey di leen jox dig daje ëllëg incha allah